suñu sëriñ Mawlana Cheikh al Islam Alxaaji Ibrahima Niass nga xam ne ñun mooy suñ royteef bi ñu gën a jege mooy suñu royteef bi ñu gën a jege moom moo ñuy jàngal ci téere bi mu njëkk a taalib xaafis wax léegi ne fal adab al adab yaaza saalik fa innahu l baabu li kulli saalik na ngeen taqoo teggiin ak teggiin yow aji soobu ji fa innahul baabu teggin gi ma lay wax noonu yow mi nga xam ne yaa ngi sóobu yaa ngi sóobu ci lan yaa ngi sóobu ci xam-xam boo amul teggin doo am xam-xam yow mi nga xam ne yaa ngi sóobu ci lan yaa ngi sóobu ci commerce boo amul teggin doo am yow mi nga xam ne yaa ngi sóobu ci sëy boo amul teggin doo am xam-xam boo amul teggin doo am barkeb sey yow mi nga xam ne yaa ngi sóobu ci lu mu ne ndax bàyyi def ne fa innawul baabu mooy bunt yi waaw kuy soobu ci lu mu mën a doon xam nga léeg-léeg nga ne ah kii mën naa jaay li muy jaay baax na waaye dafa ñàkk teggin lu ko waral waaw kii mën naa liggéey waaye dafa ñàkk teggin mën naa liggéey waaye dafa ñàkk teggin kenn du la liggéeyati ndax dañu xam ne da ngaa ñàkk teggin faale woo kenn kii mën naa jaay waaye dafa ñàkk teggin kon lu ko lu ko ñàkkal loolu mu mu waroon a am ci ñiit te amu ko mooy ñàkk teggin ndax bàyyi na fa innahul baabu mooy buntu ci lépp nag lépp looy sàkku rek boo amul teggin amul benn ñël boo boo amoon xam-xam dayoo xam-xam di fanaani raybu hmm. te amoo teggin sa xam-xam amul benn njëriñ dañ naan moom kat am na xam-xam waaye dafa ñàkk teggin torop hmm. am na xam-xam waaye dafa ñàkk teggin kon teggin mooy lépp nit daf ko daf ko war a am hmm. Cheikh Ahmadou Bamba keroog ba jugee fii senegaal dafa oo maam Corna Birahim Mbàkke na ko kaay booba ñaar ci ay doomam ñoo nekkoon mag muy Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbàkke ak Serigne Fallou moo maam Corna Birahim na ko maa ngi dem waaye xale yi booba njaboot gi la doon wax fexeel ba ñetti yii buñ ko manqué mukk nañ ko am mm-hmm. mooy lan mooy nañ fexe na nga fexe ñoom bañ am xam-xam liggéey am yar ñett yi la mu jéego ñaari paa rek na ko maam coor na mi ne ko mi ne ko yooyu ci daree bu ci dara naree manqué nañ am xam-xam nañ am yar mu jéegowaat tuuti mi ne ko maam coor na mi ne ko mi ne ko yooyu yëpp ci dara naree manqué benn bi moom bu manqué mukk mooy yar teggin nañ ko am ndax xam na ne teggin mooy lépp bu amee teggin rek am lépp kon fa innahul baabu li kulli saalik kon suñ maam yi loolu la ñuy dénk Seydi Xaaji Malik radiallahu anhu moom daf ne laxas naa fukki at la laxas juróom-ñeenti at yëpp ci xam-xam laa ko def benn at bi rek laa dem uti ji teggin mu ne bu ma yëgoon juróom-ñeenti at yëpp ak benn at bi lay dajale yëpp dem uti ko teggin loolu lim lay jàng Seydi Hadji ku ne xam na ko mooy dayob teggin waaye lool man ndaw bu mel ni mamalaaji te aw ma teggin man lay wax ak waaw waaye ñoom moom àgg nañ ci dayob teggin waaye yow ñun ndaw yi lañuy jàngal ne fokk ñu am teggin buñ bëggee jëriñu kon nag kon teggiin dafa baax pour am ko boo ko amee lépp loo bëgg rek sa digganteeg sa boroom danga ko am bëri na koo xam ne xamul dara waaye teggiinam moo ko yëkkati fu nekk gis nga ku la mag dafa am benn waaye am na xam-xam jàng na mu dëkk benn mag moo xam ne jàngut mu dëkk ak benn mag moo xam ne jàngut xamul dara waaye xale bi waxtu ne bi ñu wan mag mi ne ko man dama am xam-xam dama jàng dama am xam-xam nangam ak nangam waxtu bu nekk rek muy toroxal mag mi benn bés mag mi ne ah jàng nga xam jàng nga waaye xam-xam yi nga jàng yëpp maanaam ci kayit yi la ne yaa ngi ko jàng xam ko waaye man xaaral ma wax la li ma xam daal di tëju néegam rek def li muy def rek xale bi dee waaw mi ne lii mënu ko man jànguma dara fàttee sax mënuma koo tari waaye nag xam naa loo xam ne man bu ma ko defee bu ma ko defee rek kooku dee daf koo def rek mu dee kon ñun ndaw yi nañuy bàyyi xel loolu bu ñu wanee ne xam nañ dara rek comme ku mel ni maamalaay jàng naa benn téere jàng naa ñetti teere xaaral ma ma dépassé sama waajur yi xaaral ma dépassé sama mag ji ndax jàngut maa ko raw boo ko defee rek daanu rek daanu rek waaye boo amee boo xamul dara sax am teggin foo dem ñëpp mag ñeeg ñëpp lay bëgg nañu wax ne kii moom dafa yaru dafa am teggin gis nga dafa yaru dafa am teggin dara gënu ko ci àddina boo ko defee da nga mën a ànd ak ku nekk kon ñun ndaw yi nañ ut teggin pour am ko ndax bàyyi moo ñu wax ne fa innahul baabu li kulli saalik kon nañ leen góor góorgóorlu ci teggin mag ñi àndoon ak bàyyi dañoo amoon teggin Cheikh Ibrahima dégg nañ ci imaam Hassan Cissé mu nettali mu ne am na fu ñu doon dugg ci Qahira ci benn pale ba ñuy dugg bàyyi mi ngi yore et boobu am na lu mat juróom juróom benn bañ demee bay dugg def na ko xasan imaam xasan teel ma sama et bi du teggin ngay dugg ci buur ci kilifa di tee sa et te booba waroon naa téye et ndax ndax toll na fu mu war a téye et waaye booba teggin moom lay jàngale kon ñun nañ am teggin gu ma sëkk Seydi Ali Cissé radiallahu taala anhu nettali nañ moom ne bés Cheikh Ibrahima du moo ko nettali bés ki ma ko nettali Cheikh Ibrahima Wade moo ko nettali mu ne bés Seyda si Cissé da doon ñëw néeg baay ba mu ñëwee fekk baay mi ngi toog toogee gàpparandiku gàpparandiku ñun taalibe yi jaar si daara yow xam nañ ko mu ñëw rek gis sëriñ bi toogee noonu mu génnaat taxaw taxaw taxaw taxaw ba ci kanam ba bàyyi tëdd tëddam boobu mu mu daal di ñëw moom ñëwee wax li muy wax ak sëriñ bi ba pare génn gaa yi gis nañ ko ñu laaj ko ne ko Seydi Ali li tax ba nga njëkkee dugg nga taxaw nga toogaat ba ci yàgg dugg mu ne dama ñëw xool gis sëriñ bi toog bi ma war a toog man bu ma ñëwee moom laa ko fekk mu toog kon ban toog laay toog man gàppandiku laa moom man ma ñëw fekk sëriñ bi gàppandiku te bu ma ñëwee damay gàppandiku mu gàppandiku ma gàppandiku kon nu may dem ma dem ba mu toog toogi sëriñ man ma ñëw toog toogi taalibe lii rek moo tax xoolal teggin boobu ah Cheikh Baye Mar nettali na ma ne mu ne mos naa ànd ak maam Cheikh Ibrahima Fall fajar ji julli ci jumaa ji ba ci yàgg ñi ñëw ñi ñëw ba jàdd rek buntu kër Cheikh Mouhamad Nazir rek dafa ne tëll rek gi Cheikh Mouhamad Nazir di ñëw rek mu ne ko tekki ci loxo di ko taxawal mu taxaw mu ne tekki rek mu ne Cheikh Baye Mar nee na mu taxaw rek mu bàyyi mu ne ko dañ taxaw rek. mu taxaw bàyyi Cheikh Mouhamad Nazir dox nànk nànk nànk nànk bu dugg biir këram ñu ne waa fii na mën nañoo dox mu ne kii sama sëriñ la du teggin may dox ci kaw suuf si muy dox ñuy daje Cheikh Baye Mar bu mu ko nettali kon ñooñu teggin lañ jàngale dañoo jàngale teggin dañoo jàngale sufiyanke kon sufiyanke bu nekk war naa góorgóorlu pour jéem a am teggin pour jéem a baax bokk na ci teggini taalibe ak sëriñ nag fa laay tëjee mm-hmm. mooy taalibe bi bokk na ci teggin bi nga xam ne mooy jëriñ taalibe ak sëriñ mm-hmm. baay wax na ko ci Kashful Albas mm-hmm. nee na du teggin taalibe ak sëriñ di bokk benn néeg di fanaan mm-hmm. loolu du teggin loolu taalibe waru ko nangu sax du teggin taalibe bi toog ci chaise bi nga xam ne ci lay sëriñ bi di toog mu ne du teggin du teggin taalibe di ñëw ci sëriñam di ko nuyu fekk ci kawam daraam ko dem maanaam lu mel ni kaala wala mbaxana ñu mm. ne loolu du teggeen même sa kurus sax am na koo xam ne comme maamalaaji man bu may dem nuyu sama sëriñ dama naa ah xaar ma def nii sama kurus pour wan ko ne ko man damay wirdo mm. liy teggit mooy sa kurus gi jël ko nga lem ko dugal ko sa poos bu ko wan dara ci yow looy utee maqaama boo ñëwee toroxul ci kanamam rek mm. wan ko ne ko man nekkuma ci li ñu utee maqaama yow yaa ko yor jox ma ko rek mu dem waaye boo koy wane ne damaa yore kurus yaa ngi woon sëriñ bi ne ko ni ngay wirdoo laa wirdoo kat ni ngay jàngee alxuraan laa koy jàngee waaw kon kon loolu yëpp pour taalibe pour jëriñ du teggiin tamit nga toog sa sëriñ toog ngay tàllal say tànk loolu du teggin du teggiin ci yoonu sufiyanke taalibe toog di tafli ci kanam sëriñam loolu du teggiin du teggiin taalibe ci kanam sëriñam ne <coughs> <coughs> <coughs> sa sëriñ a ngi toog nga koy def loolu du teg wala muy géex loolu du teggeen kon loolu yëpp dañuy jàngale loolu yëpp dañuy jàngale du se du teggeen du teggeen ngay ngay nuyu sa sëriñ fekk yaa ngi sol sa dàll loolu du teggeen booy nuyu sa sëriñ da ngay simmi sa dàll loolu yëpp bàyyi moo ko jàngale mi ne loolu mooy teggini sufiyange du teggeen tamit nga sol ay yére mi ne lu dul mu may la ko pour nga barkeelu ko bàyyi wax ne hmm. lu dul tamit comme taalibe ñëw sol mbaxana nuyu sëriñam mi ne bu ko sëriñ ba digalee loolu amul benn problème bu ko sëriñ bi loolu yëpp nag bu ko sëriñ bi digalee na ko ah kaalawul amul problème bu ko sëriñ bi digalee na ko solal mbaxana amul problème bu ko sëriñ waxee na ko kaay ñi nalaw maa yow ci néeg bi amul problème sëriñam moo ko digal na topp ndigalam rek gannaaw sëriñam bu ko sëriñam yëkkatee sées bi jox ko na ko toogal na toog rek illa an yazana laka loolu lu dut mu digal la bu la digalee nag na la defal lii rek defal lii kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla dimbale loolu moo doon luñ tënkee